asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi xissa bii ma leen di jox maa ngi ko jëlee ci téere bu ñuy wax alkabair bu imaam dahabi muy nettali ni benn soxna boroom këram dafa génn àdduna bàyyi kook njaboot gu sew soxna sa ñàkk lool ba amatul lum faye lu yaas benn bés boroom kër ga xëy génne soxna sa ndax amatul dara lu mu fayee guddi gu sedd lool ànd ak ngelaw soxna sa jiital ak njabootam ngir génn dëkk ba wuti fum dëkk ndax mi ngi ragal ku ko lor muy dox ba dugg ci ab dëkk jël njaboot gu sawgam gam yoroon dugal leen ci benn jàkka moom muy dox ngir utilum lekk mook njaboot ga soxna sa di dox ba dajeg góor gu baax dib jullit bu mën a wéetal yàlla soxna sa ni ko góor gi man day sonn naa xiif naa lool te mar naa maak sama njaboot noo ngi sàkku ndimbal ci yow nga dimbalinu góor ga ni lan mooy firnde ni li ngay wax dëgg la soxna sa ni ko man xawma fi kenn loolu rek laa la mën a wax góor ga romb ko dem yoonam soxna sa gën a am njàqare di jooy continue aw yoonam soxna sa di dox ba dajek geneen góor goo xam ni ab catholique la soxna sa nettaleel ko ay mbiram góor googa di catholique jël soxna saak njaboot ga yóbbu ca këram wax ay soxnaam ni leen jox leen soxna si mu lekk ba regg jox leen ko ay sër mu sol na fanaan ci yéen ba subaak jàmm ba guddi ga xaajee ka nga xam ni ab jullit la daal di gént gént guy yéeme lool maanaam yow qiyaam moo taxaw ci gént gi moom góor gi gis na fa pale bu rafet lool ànd ak wurus ak or ci biir gént gi góor gi gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw góor ga ni ko yow yonent bi pale bu rafet bii kan moo ko moom yonent bi ni ko ku ragal yàlla te di jullit moo ciy dugg góor gi ni ko man de ab jullit la te ragal naa yàlla yonent bi ni ko ana lan mooy sa firnde ndax li ngay wax dëgg la da nga fatte aduna sakun ko la fa don sakku dimbal di jigen new dole lol nga sakku won ci mom firnde kon tay dañu lay laaj firnde gor ga tit ci ay nelaw daa yew bam ba suba dox di wori soxna sa ngir dimbaliko mu yek ni soxna sa nga ci kër catholique ba mu dem ci catholique ba niko soxna si fanan ci yow la soxla won dama ko bëggoon jox alal ji mu dimbali koko gor gi di ab niko mukk duma la ko jox ndax li nga bëgg ci man la gën a yeyoo li nga gént gént naa ko gént naa pale bu rafet lool ma laaj ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni ma foofa danga fa dugg yaag sa njaboot ndax kat man biig bi soxna si ñëwee maag sama njaboot nelawuñ benn yoon ñu ngi toog di waxtaan ak soxna si ba yàlla dimbale ñu ñu tuub ci loxoy soxna si soxna si nag danaa ko dëkkoo ba keroog mu fiy jóge mbaa ma fiy jóge yonent bi fàttali na ma ni képp ku faj aajoy sa mbokkum jullit yàlla faj say aajo ku dindil sa mbokkum jullit njàqare yàlla dindil la njàqare ëllëg yowmal qiyaam ku suturaal sa mbokkum jullit yàlla suturaal la àdduna ak àllaaxira ca la jullit ba tàmbalee réccu nag xam ni ñàkk na aw yiw wu yaatu lool kon yéen samay mbokki jullit ki néew doole néew kàttan ba ñëw ci yow di sàkku ndimbal bul xoolati mukk la muy wax dëgg laam du dëgg yow amal yéene ju sell sa digganteeg sa borom yëkkati la koy dimbalee soo ko amee nga dimbali ko te yàlla tax tabul seet leneen ndax yow kat boo ko defee yaa ngi jëflanteeg sa borom tabaraka wa taala ci sa yéene ju sell te képp ku jëflanteeg yàlla ci yéene ju sell lool ak lu mën a xew sunu borom tabaraka wa taala dana la fay yiw wu yaatu lool أدنى الآخرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون